ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi leen di nuyu ci turu suñu kilifa gi ñu àndal wala kilifa yi ñu àndal muy sëriñ Modou Kimaan jóge ca Daaru Rahman ca sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké nuyoom boobu ñu di ko teg ci loxo Cheikh Sidi Makhtar xalifatu Cheikh Abdul Ahad muy nuyoo mbégte waaye balay loolu ñu dikk rek ci ñi nga xam ne ñoom lañu àndal ki jiite yoon wi di sëriñ Modou Kimaan ibnu Cheikh Abdullah sëriñ Mbay Mbàkke ibnu cheikh abdallah soxna faati mbàkke bintu cheikh abdallah soxna astu mbàkke bintu cheikh abdallah soxna muminatu mbàkke bintu cheikh abdallah soxna muxsinatu mbàkke bintu cheikh abdallah soxna may abo mbàkke bintu cheikh soayb soxna maam faati mbàkke bintu cheikh soayb sëriñ Abdoulahi Mbacke yàllaay buur yabal na doomam sëriñ Taala sëriñ Abdoulahi Mbacke ibnu sëriñ Modou Astou Mbacke ak ay rakkam sëriñ Abdoulahi Mbay ibnu sëriñ Abdoulahi Mbay ak mbooloo waa kër sëriñ Malick Fall sëriñ Mbacke Fall sëriñ Saalihu Jeng xalifa sëriñ Abdul Karim Dieng Balla Faali ak mbooloo fédération sëriñ Cheikh Mbacke Abdullahi ci njiitul alxaaji sëriñ loo ak mbooloo mu takku fédération sëriñ Mouhamadul Habib ci njiitul sëriñ Cheikh Mbacke ak mbooloo mu takku daayiratu salaam ahfaadu Cheikh Abdullahi di membre yépp góor ak jigéen wala la ci ëpp teew na fi euh, ci njiitul nag sëriñ Abdul Ahad xasaayit ñuy jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo kilifa yi nekk ci jataay bi mu di sëriñ Modou Mbàkke ibnu Cheikh Abdul Ahad ak sëriñ abu Mbàkke ibnu Cheikh Abdul Ahad Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ibnu Cheikh Gaynde Fatma euh, wax ji nag du gudd ndax lépp luñ fi waroon a wax wax nañ ko fi te tey li ñu fi indi mooy jokk bokk googu sëriñ Modou Kiimaan bi ñuy ñëw mi ngi wax ne lii lu rafet la ndax mag ña dañ daan ganeyante léeg-léeg kenn jóg dem gane ji mbokkam mu doon lu am solo di dundal ak bokk mu ne ab diir loola am na leneen lu ca topp te dafa juddoo ca loola te lépp di defar waaye lii nag moo delloo ci mag ñi nañ daan ganeyante ndax bu Cheikh Abdoulahi daan jóg moom rek la daan doon dem seeti Cheikh Abdoul Ahad wala Cheikh Abdoul Ahad jóg dem kër Cheikh Abdoul Xaadir waaye léegi nag njaboot gi yépp ñuy jóg dem fekki ji njaboot gi ñu xamante te xamante googu dafa doon ab charte ci mën a dox ak bokk ndax mbokk boo ko xamut dox ga du yomb li ñu fi taatan muy waxtaan wu am solo soxna may Maymuna def ko ci liñ ci seetlu mooy li mu bëggoon a wax lépp xajut ci temps biñ ko jox waaye la ca ëpp solo génn na la ca tegu Cheikh Abdul Ahad indi ci jëmmal lépp luy indi koom-koom walla doxalinu koom-koom ci xitma waaye ci atum 2009 ci réewum Libi dafa am sommet bu fa amoon some boo xam ne dañ fa daan daje ndax ñoom dañ daan financer ay programme ak ay ONG waaye lu yéeme xew fa keroog ndax secrétaire généralu association appel islamique mondial dafa jékki-jékki rek daan ne léegi de doxiinu murit moo fi xew ñépp jaaxle te loolu lu tax mu ne lan mooy doxiinu murit mooy fekk fu dara nekkutoon nga def fa dara waaye fu dara nekkoon nga fexe ba yokk daan na ci communauté boobu di murit ci lañuy gis ku xëyee ca dëkk ba du am sax ab saak yam yor ci mbuus la koy def wala léeg-léeg sax mbubb moom sol lay dugge dëkk ba ba mu àggee ca réewum teeru ma immeuble ba mu taaw ba mu fanaanoon ca suufam ay at yu néew la fay toog jënd ko liggéey bay dox te nam meloon ci jikko ak ñam daan àndal du soppiku daal ne nag léegi balaa ñuy joxati kenn dara dangay yore melokaan woowu dangay jëf jëfin woowu dangay tàmbali ba àgg fenn ñu ñëw àggaleel la walla ñu tàmbalil la nga eggale daal lu tax ndax ñoom koom-koom moo leen ñor ak lu koy naatal waaye du jëmmi koppar yi indi fay seede yu rafet ci sëriñ saaliw ne moom dong lañ mës ñëw indil ko xaalis bu takku bari lool bay waaja a dem biñ ko ko joxee mu ne leen lii lan moo tax ñu ne ko dañoo bëgg dimbalante te yàlla tax mu delloowaat leen xaalis ba ne leen dem leen ba li ñuy dimbalante leer ci suñuy bopp ñu ne nag kon kooku ak doxalin woowu ci muridiya loolu mooy doxin yi ñuy doxale muy loo xam ne it buñ ko jàngatut ay nit ñu ngi ciy jariñu ci àdduna bi yépp buñ demee fu mel ni Amérique ci états am na fa institut boo xam ne la suñu mag ñoo ñu baaxle woon rawatina Sëriñ Tuubaa lépp ña ngi koy jàngale ak di ko jariñoo institut ba mi ngi ñu ngi ko taxawal ci 1948 mi ngi tudd institut pour l'étude de la pensée islamique en Afrique ña ko taxawaloon du ñu doon sax ay jullit waaye lan moo leen xiiroon ci loolu mooy gis nañ ne ci der bu ñuul ay njariñ mën na cee juddoo te ñooñu jàpp nañ ne ñooy dundu lislaam dëgg kon daal liñ fi taatane te sëriñ Xalil idaara jalsa bi idaara bu am solo macha allah ñi fi jaar ñëpp sëriñ naa nga xam ne moom ci xidma dañ ko ci topp bu baax te mu tudde ko ak liggéeyal muy loo xam ne it bu ñu demee ci fu mel ni Turquie dañ ko fay fekk waaye xidma bi am Tuuba moo ëpp solo te moo gën a neex jëflante waaye ñoom nag dañoo wax ne ci xitma yéen waa Touba seeni taalibe ñoo dàq joxe suñu yos luñ laaj ñu joxe waaye nag suñuy njiit ñoo dàq manager seeni njiit ñu leen lu tax ñu ne li ca ëpp lu ngeen laaj buñ ko joxee da ngeen koy jënde ay xeer màgg ga dootu gaaw walla du yomb nee na ñoom nag seeni njiit buñ leen joxee lañ leen jox dañ koy investir dugal ko foo xam ne day yokku ak di sekki loolu nag di defi boo xam ne mënees na caa jàngat mënees na caa itama jariñoo diggante Cheikh Abdullahi ak Cheikh Abdul Ahad duñ ci sori ndax man mii sama jur soxna Daba moo ko yoroon Cheikh Abdul Ahad moo ko yaroon ci biir këram gi ñuy nuyu bu baax sunu jur soxna Maymuna Abdul Ahad di gàttal ndax lu gudd bay law-lawi Sëriñ tuuba bëgg ko woon ci ay njàngaleem walla taamuwu ko woon ci ay njàngaleem xanaa andi tuuti rekk ci bennoo gi ñu bëgg ak la ca Cheikh Abdul Ahad waxoon te moo di mbooloo mu nekk bokk lañu bokk war nañoo takk seen bopp def ko ni aw say ba mën a jariñoo seen bopp suñu defut noonu keneen dana jóge feneen ñëw takk leen ni aw say jariñoo ji leen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. seere yi